tey ji bu ñu ñëwee ci wàllum euh, ndomba ndomba ñi koy defar bari na est-ce que ndomba yëpp ñoo bokk lu ñuy def yii dañuy aar yii dañ lay may wërsëg comme jaaro yi nu muy def wala yii day tax tuul lay nekk parce que gis naa say vidéo yoo xamante ne tuul moom dama naan yaa fi mën si Sénégal waaw ay kudd yi damag lu nekk gis naa ko surtout ko loolay waree ne tuul bi moom dëgër na bëggoon naa xam ndomba yi exactement lan moo ko tax a jóg. waaw lu ñuy takk gàllaaj bu nuy gàlloo di ko takk ci ndigg wala nga di ko takk di ko ràngoo mhm. wala di ko takk ci bopp loolu moom amatul waaye gàllaaj yooyu ñu ngi am ba léegi mhm. ndax nit ñi defatuñ ko mhm. wala nga koy ràngoo sa biir baat muy wàcc euh, lu ci bëri mën nañ la ne kaaraange moo ci ëpp doole kaaraange moo ci ëpp doole moo xam kaaraange tul la mën nañ ko yóbbu ci kaaraange ndax tul moom yaakaar naa àddina wërngal këpp xam nañu ci bu fekkente ne euh, ndomba kaaraange la nag goo xamante ni euh, liggéey du la jàpp da ngay mucc ci cat saytaane rab liggéey bu bon lépp loo xamante ne lu yàqal doomu aadama la da nga cay mucc euh, kooku am nañ ndomba goo xamante ni juróom-ñaari gaw kese la nekkul loo xamante ni lu lay lu lay lu lay sonal la donc Découvrez la bague de bonheur, bien plus qu'un simple bijou. Présentée par Milor Sheikh Saliulo. Cette bague unique protège contre les mauvaises énergies, attire l'amour, l'argent, la prospérité et le succès dans votre vie. Porter la bague de bonheur, c'est inviter la chance et le bonheur à chaque instant. Fabriquée avec soin, infusée de magie ancienne, elle est le compagnon idéal pour ceux qui cherchent la sérénité et l'épanouissement. Choisissez la bague de bonheur et laissez-la illuminer votre chemin. Contactez-nous à Malika Plage ou à Touba par téléphone ou par WhatsApp au 00 221 78 200 32 78 78 00 221 76 383 00 00 disponible dès maintenant. Commandez la vôtre et transformez votre vie. cangat gi moom ngay utiliser ba pare mhm. soog di takk ndomb gi lépp lu nekkoon si yow day dañ mhm. moo xam li ñu lim noonu la te it mhm. lépp loo xamante ni it euh, muy wàllu cat saytaane rab liggéey bu woon yëpp dara dootu la ci dalati mu mel ne daal laaj bi nga laaj ci wàllu euh, gàllaaj ndomba euh, kaaraange moo ci ëpp doole am na nag ndomba yi bare bare yoo xamante ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy liggéey daru yeew lañ koy liggéey ñu nit ñu ngi ko ciy liggéey d'accord kon tey jii nit ki mënu jóge fee ñëw rek na defaral ba ndomba. waaw ci kaw ndomba gi ñu gi soxla ñu xam soxla bi. Hmm. ndax euh, bu fekkente ni dafa yittewoo euh, ndomba tul. Hmm. ndomba tul yi moom dañ ko dañ cee liggéey lu bari liggéey nañ ci jamono ji loo xamante ni sax dafa war a génn réew mi. Hmm. Euh, kooku moom dangay ñëw rek ñu yëkkati benn xool bi la jot ñu jox la ko wala ñu jox la nga dem ëwali ko sa bopp. na mais bu ne ndong ndombay gi la. Mhm. si nañ ko ba pare mais bu ak bayre gi il faut ñu am sa ak sa yaay. Mhm. ndomba bayre bi lañ koy Discover the ring of happiness. Much more than a simple piece of jewelry. Presented by Nylor Cheikh Salio Low This unique ring protects against bad energies, attracts love, money, prosperity, and success into your life. Wearing the lucky ring means inviting luck and happiness into every moment. Carefully crafted, infused with ancient magic, it is the ideal companion for those seeking serenity and fulfillment. Choose the ring of happiness and let it light up your path. Contact us at Malika Plage or Tuba by phone or by WhatsApp on 00221 78 232 78 78.00221 76 Available now. Order yours and transform your life.